Meissa Babou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. Meissa Babou nga nekk économiste sa xam-xam màcc ci wàllum koom-koom laaj bu njëkk bi ma lay laaj moom mooy économiquement euh, lan la grand magal de Touba mën a apporter réew mi. waaw loolu de bi yaatu la ndax magal <coughs> comme économie ci boppam moo bëgg fête maanaam dajaloo daal mbumbaay moo xam ci naxar la moo xam ci bànneex la. loolu moom mooy dundal économie mais màggal la ca gën a neex mooy du benn fan du ñaari fan dafa yaatu yaatu boobu mu yaatu nag moo tax sax lu naqare évaluer la ndax dëgg-dëgg màggal ñun ñu fa dëkk ñun xam nañ ne ñeenti weer avant lañ koy commencé wala juróom am na ñoo xam ne nii ci la ñuy commencé profito terminer seen bâtiment am na ñoo xam ne nii ci la ñuy profité def ay travaux yu ndaw ndawaan yoo xam ne nii dangay ngay carrelage ak defar ay robinet yu yu sew sewaan yooyu ñenn ñi ci des meuble yeeg yooyu yëpp et cetera ba nga xam ne suñuy egsi ca màggal ga léegi nag foofu ay transport lañ lay wax ak ay euh, nag yi ñuy lekk ak <laughs> yu sew ak ak boisson yooyu daal te yooyu doo sooy xool ci ci ñaareelu pàcc rek lay doon moo tax lu jafe évaluer la. mais retombées financières yi parce que souvent wala daaw sax euh, gisoon nañ benn étude boo xam ne mu ñuy wax ne euh, ci màggalum Touba dina générer euh, deux cent cinquante milliards lool loo si xalaat da koy dëggal waaw wala déet. non non du ma ko dëggal mais damay féliciter ñi ko def sama naataangoo yi nekk Bambey. mais loolu moom mënu ko dëggal ndax euh, ñu ci li ñuy wax méthodologie maanaam li ma la expliqué léegi ne la màggal gi ñeent weer ak juróom weer day commencé loolu ku ko xamul mënuloo xam màggal lan lay joxe <coughs> donc dafa am benn façon boo xam ne ni moom lay war a taxawu pour liggéey liggéey ci màggal bi euh, pour nga xam dëgg-dëgg yëf ñaata laag ku nekk lañ ci am ndax lii ma la wax ni muy artisanat local bi maanaam maçon bi tailleur bi loolu xam naa ne bokk boole wuñ ko ci ci ci yëf yi ki di ki defar euh, eggale bâtiment ñeenti weer avant xëy boole wuñ ko ci bu fekkente ne da bëgg a xaar nag ba bis ba jot day nat ñetti fan wala ñeenti fan loolu damay jàpp ne am na lu bari loo xam ne ñu duggul ci euh, étude bi ba nga xam ne jàpp naa ne daal luñ trouvé war na mën a nag ñaari yoonam Euh, suñu waxee màggal Touba léegi euh, férié la euh, te férié est-ce que baax na ci koom-koomu réew lan mooy conséquence su férié ci ci koom-koomu réew en fait. waa déet feet moom ndax xam nga pour nga xayma tuuti rek nañ la wax ñaata tonnu suukar ñoo waroon a génn te génnuñu ñu wax la ñaata tonnu ciment lañ waroon a liggéey ci réew mi te liggéeyuñ ko ñu wax la téléphone bii rek eh, liñ ci waroon a def ci biti réew te duñ ko mën banque yi ñaata milliards la ñuy def lu ñuy wax transfert jóge fi yóbbu fële te su xale ba feet am bañ tëj banque yi kenn dootu ko mën a def kon pour wax la rek excès ma ci sew sewaan yi sax kii doon defar tamaate kii defar beurre ak yooyu mais eh, dama la bëgg wax rek ne la liggéey moom Euh, mooy mooy yor a koom ñàkk liggéey euh, du du ma ne daane mais dana wàññi doole doole koom bi daal. Euh, tey jii Meissa Babou ñu gis ni uh, sax bu màggal ñëwee yokkute dafay am ci prix rawatina ci wàllum transport est-ce que yow jàpp nga ni loolu lu normal la waaw wala déet. déedéet nii ñu koy defee am na nag lay waxoon ne nii mën naa ko nangul transporteur yi ñu ne soo yóbboo oto bu fees soo ñibbisi kenn du ci nekk mhm. waaw loolu bu fekkente ni am na dama ragal ne régulateur bi maanaam maanaam nguur gi li war a def mooy mu jël benn décision maanaam kuy paas ñett juróomi téeméer dem soo ñibbisi ñu ne la teg ci ñaar téeméer juróom fukk maanaam njëkk ak genn wàll daal mais ñu bañ a bàyyi rek informel euh, chauffeurs yi def lu neex ak coxeur yi di yokk njëg yi ñaar ba ñetti yoon euh, soo yoree euh, saaga amee sax ñu ne da ngay fay téeméer yooyu lu metti la jàpp naa ne daal état bi ak bànqaas bi yooyu ñoom ñoo waroon a teel a jóg teel liggéey wax bind ñu affiché ko mu leer kenn ku nekk xam ne ci bis sàngam lay commencé maanaam ñetti fan sax avant mais pas pas pas avant avant avant avant euh, loolu lépp daal dañ ko war a saytu régulariser ko daal mais actuellement nii muy doxe nii moom moom taalibe yi sonn nañ torop Mhm. Maysa Ba bu ñu génnee sax ci cadre euh, màggal bi ak prix yokk yi dañu gis ni tamit euh, daanaka fiñ ñu toll nii euh, njëg yëpp dafa daal di yokk fii ci senegal njëg yi daal di yokku te gis nañ ni tamit salaire yi yokkul loolu lan la mën a jëf. waaw naa benn statistique bi naan pour cent yi mënuñ def ñetti. repas yi. Mhm. maanaam kii añ reer mais jàpp naa si ëpp na ko donc ñi mu méttee jafe Sénégal ci boppam ci ay at yu bëree bëri bëri euh, Sénégal dafa cher cher na cher boo xam ne nii euh, dund fii vraiment euh, il faut nga nekk ndaanaan tey nag su leneen ñëwee dara ci suñu kaw. sa salaire yokkuwul ba pare liggéey amul chômage bi dafa bari. exactement. Mhm. loolu soo ko boolee wax dëgg yàlla yokkundoor rek lay def. kon nag euh, problème yaa nañ séentu famine am Sénégal maanaam xiif carrément comme ni ko yenn organisme yi di menacé. wax da xaw a jafe tuuti xam nga ndax Sénégal nag <coughs> solidarité bi dafa am doole. Mm. maanaam benn koñ da ngay gis ne ñaari këram ko wala ñett. yoo xam ne nii ñoom waxuma la sax ñaari repas mais benn sax mënuñ ko taal. Mhm. mais da ngay gis immédiatement ñu ñu ñu leen xam yan ak ñoom dañuy dañ leen di toggaaleel daal. Mhm. bu jox leen. wax dëgg yàlla solidarité boobu rek moo ñu téye mais su tolloog loolu effectivement da nga <laughs> danañ dem ba lekk sax xobu garab ndax dañoo am na ci côté yoo xam ne san baa va pas du tout. Euh, ñu gis ni tamit nee nañ gannaaw ba lépp yokkee ceeb bi tamit dafay daal di yokk euh, ceeb nekk denrée bi nga xamante ni moom la euh, sénégalais yi di gën jëfandikoo mu nekk denrée de première nécessité lan nga ci xalaat exactement. waa xam nga ña koy jaay ñoom ñoo ne dañuy teg benn taxe bu bees taxe vingt pour cent donc wax jooju ind la jóge ak xam naa. Mm-hmm. loolu nag bu fekkente ne am na ak tolluwaay àddina nga xam ne bateau yi dañoo multiplier par deux maanaam lu doon fay junni ci bateau léegi ñaari junni ngay fay loolu nag soo ko ci boolee moom faw kon su excès danay cher waaye nag buñ mere kenn nañ mere suñu bopp ndax lii lépp nag luñ moro war lu mën a la te defuñu ko daal Euh, tey ji est-ce que si crise bu métti bi nga xam ne ñu ngi koy dund yokkute prix yi euh, est-ce que Sénégal mën na am lu ñuy wax croissance waaw croissance bi moom amul solo bu Sénégal bi nag laay wax mhm. suñ newoon pour cent sax baaxut ndax li koy joxe ñun dañ cee moomul dara amuñ ci dara sooy xool téléphone bi moo koy joxe xaalis téléphone bi France la jëm sooy xool ciment yi ñoo koy joxe su demul Nigéria dem France ndax ñun moomuñ ciment yi li koy joxe suukar bi la Suisse la jëm Mimara Mimara moo ko moo ko moom. Mhm. Euh, banques yi moomuñ ci benn dërëm te banques yi aussi ci lañ bokk kon sooy xool daanaka la ca mbay am maanaam napp ga am ko ci lu lu lu lu ñàkk la ba nga xam ne euh, loolu la ñuy wax croissance yi maanaam vraiment comme boo xam ne ni daal. dañ ko dañuy ñëw même dañuy bay ko Sénégal rek euh, daal di euh, góob dem seen yoon. yóbbu ko xam nga loolu tamit ñun ñu solo daal. moo tax lu gouvernement bi mën di wax ci croissance nangam nangam nangam nit ñi dañuy reetaan daal parce que dañuy xam ne dañ naan sax du dëgg alors ko dëgg la mais euh, ña ko moom ñoo dul sénégalais loolu moo suñu problème. donc lu mu métti métti croissance boobu mën na am parce que. non <laughs> ndax mën na am. Hmm. xam nga déjà rek investissement yi koy joxe sooy xool sax. su dul entreprise yi def bénéfice yu bees yi maanaam tey pétrole ba ca digg géej gi li ci tubaab bi di investir pour génne ko dañ koy boole ci calcule bi loolu ci suñu yoon xam nga <laughs> yu mel noonu ak autoroute boo xam ne nii ma nga ne kenn xamul fu mu yem yu mel noonu daal ñuy defar benn state xam nga yooyu yëpp soo ko dugalee ci calcul bi ba pare ne béykat bi réew maa ngi dox. Mm. mais da daanaka da koy ñaawal daal voilà. dernière question peut-être si yaatal tey jii lan mooy solution pour ñu mën a génn ci crise bi Sénégal di jànkonteel ñu bari sax nee nañ mondial di évoquer ay Covid-19 wala guerre ba ca Ukraine. waaw loolu moom loolu dëgg la Covid bi ak guerre bi ñoo indi changement bi ci àddina bi mais attention am na ku ko yëgul maraw nga ne am na loo xam ne yëgu ko. Mhm. mais parce que ñoom dañoo bàyyi nañu lekk ñun dañoo tardé. bari ñu nuñ dundee ba lu su àdduna bi euh, sojee ñun ñu tisoo lii waaw kon nag buñ ñu kenn lépp ñoo ko teg suñu bopp ñun ñoo jël alal ji defuñ ko li ñuy wax investissement sociaux de base maanaam euh, def fagaruwuñ ba kenn du fajoote Maroc wala ngay dem France di faju ji mhm. fagaruwuñ ba suñu élèves yi kenn bëggatutu dem France wala Canada ndax fii soo fi jàngee war na mën a baax fagaruwuñ ba dootuñ jëndi ceeb wala diwlin waaw kon nag ñun comme que ñun daal ñu ngi ne yàcc na yasar di di di jël suñu alal di ko def ci ay yu yu kenn xamul ay TER ak ay BRT alors que yow euh, luñ nekk amu fi ah mi ngi mel ni euh, nit koo xam ne ni su gaaree 4 x dugg ci néegu ñaxam su génnee <laughs> taalaat 4x4 am ñàkk fayda loolu kon loolu mooy daal mais mais est-ce que Meissa Babou ku ñëw rek ne euh, crise bi li ñu ci mën a génne moom mooy euh, li ñuy dundee ñu koy bay euh, gouvernement bu fi ñëw mais lan moo indi blocage ba mënuñu suqali mbay mi fii ci Sénégal quel la problème pour yow si sa gis-gis. problème bi mooy. Mhm. ñu exécuter ko. mën naa la wax benn programme di ñaar. Mhm. Abdou Diouf nouvelle politique agricole mujjul fenn nouvelle politique industrielle mujjul fenn. Ablaye Wade ñëw ne Goana. Mhm. mujjul fenn parce que acteurs yi ko war a doxal te Goana dañ ko bindoon mu leer nañ wante comme ay triant politique ngay seen poste rek la ñuy gis te euh, xëy na léeg-léeg doo mën a taxaw fépp problème yooyu la am nguur gi moom bu Macky Sall bi moom damaa gisul programme bi programme buñ bind lu mel ni Goana amu fi tëjëx tëjëx rek la ñuy def kon nag dafa jot ñu toog bind lu leer wax lu leer ne mille milliards lu toll noonu suñ ko nee def ci terre dem ba ca waalo ñu def fa ndox dolli ndox ma dolli mbéy ma dem Casamance dem Saalum dem Bawol lu fa manqué ci ndox ñu def ko fa lu fa jaadu ci tool su dee pomme de terre ñu def ko fa su dee salade ñu def ko fa loolu moo loolu loolu jafewul ah ñoo moom suñu réew xam nañ fu ñu war a mën a béyee pomme xam nañ fu fu salade nangoo mm-hmm. mais wax dëgg yàlla dañ koo defut waaw comme que nag defuñu ko nañuy toog di importer muy metti nit ñi di yuuxu ku feebar dee kenn du jàng njàng ku jàng njàng ma yàqu ñu ànd ndóolandoo ba yàlla jëluñu rek Meissa Babou réew FM mi ngi lay jëfal merci c'est bon. may fàttali ni économiste nga maanaam sa xam-xam dafa màcc ci wàllum koom-koom waaw